Malikum wa yof. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne ne xew-xew bi nga xamante ne lañ amoon muy bés bu mag. di drapeau bi nga on ne dañ ko tuddoo dañ ko tuddee woon sunu coordinateur di sunu président coordinateur bu à Dakar di encore tamit sunu président Marier. bi nga di encore tamit président comité restreint bu section bu kébi bi di Ablaye Seck ñu gën ko xam si laay amaat fi benen drapeau boo xam aussi ñu ko tuyé tam sunu frère sunu xarit di Ablaye Diouf sar di sunu maire di sunu ministre benen bi ñu tuddee ko El Hadji Biram Ñing aussi tam di sunu lépp kon yaakaar na ñett drapeau yëpp fekkee dafa nek xew-xew bo xamanteni ci benn bëss la naroon amé muy le 30 biñu japon mu tombee nak bëss bo xamanteni benn bëss la ci bëss yi di bëssu cheikh bi di Cheikh Mansour Diouf bëss bobu nak yaakaar naa ne lu fi mëna xew rek bëss bobu taxawé lépp dañ koy toxal ñuy gërëm nag Cheikh bi nga xamante ne mooy promoteur bi nga xamante ne ni Cheikh Baye ñu gën ko xam ci Cheikh Baye bi nga xamante ne nag ne xew-xew bi ma fi wax léegi nii si drapeau yi moom moo ko fi taxawaloon ba tuddee ñu ko kon ba mu koy def xamul woon ne ne bésu Cheikh Mansour Diouf bi ne le trente la ñun ñi mu ko tuddee aussi tamit bi muy ñëw ci ñun ba ñuy am kontante bay jël engagement ci bésam bi nga xam la ñu tuddee jàpp ñu woon ne bésu Cheikh Mansour Diouf bi le 30 la waaye nag bi mu demee nag ba ñu xam ne ne bés bi la 30 la moom liñ koy gërëmee mooy bi ñu ko woowee wax ko ne nekkoon benn bés boobu nag kenn moomu ko kudul sëñ Touba nag fii si Yoff ànd na seex ñun ba fekk si nañu si ndax bés boobu nag ñun dañ si am wàll bés boobu mën naa wax ne Yoff da si euh, da si am wàll mais quai de pêche da si am wàll ba quai bi mën naa ay at a chaque année dañ koy jox waañam kon boog nit ki bu ñu demee boog balay jox waañ si mbir ah nga xam ne ne kon da sa bokk kon bës boobu ñu ko yemalee benn bës ba Cheikh nag ñuy ñaan nag puus bi nga ko puus nii yàlla na suñu borom def ndam muy sa programme bi nga xamante ne ne moom nga bëgg a taxawal puus nañ ko nag ba le 8 ñuy wax nag la ñu waxoon nag la ñuy waxaat ñu ngi woo ñëpp di woo waa géej yëpp di woo mbokkulaay yëpp di woo acteur de la pêche yëpp di wax ne nag ne bës boobu engagement yi ñu jëloon si le 30 rek puus nañ ko ba le 8 dañ koy jëlaat di wax ne bu ñëwee nag muy maire maa ngi koy woo nag ne donte am na si nag drapeau am ñun dinañ si taxaw taxawaayu drapeau mais tam aussi am na ci drapeau kon na si taxaw bu baax muy bésu Cheikh Baye parce que tamit marieur bu bokk nag si ñun di njaboot si ñun moo ko tuddee bës bi di laay beneen ba sales ñu ngi woo biram di ko wax ne ko nag ay frère di laay di jabel di waa géej yëpp ñoo koy woo neen tam aussi drapeau suñu drapeau la mais tam aussi bëgg nañ mu teew si jàppale Cheikh bu baax waaw beneen bi aussi tamit ñuy woo docteur Moustapha di wax ne ne ni mu melantee Ablaye Diouf Sarr ñëpp xam nañ ko parce que ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd nekk benn di liggéeyal président Macky Sall kon drapeau bi sax dañ koy jël yëpp delluwaat ko président Macky Sall di wax ne ne kon ñoom ñëpp dañu bëgg ñu àndandoo ñu ànd ak ñun bu bés baa ñu taxaw si taxawaay bu mucc ayib si lépp nag ñëw jàppale Cheikh mi nga xamante ne ne jël na bës bi jox leen ko ñoom ñun tam jëlaat nañ bés bi ñun téye ko ne dinañ si ànd ak ñoom liggéey si bu mucc ayib di wax ne ne kon Cheikh bi le 30 bi ñun tam waa géej dinañ dajaloo comme nañ ko daan defee

am ñu ànd ak waaw am ñu ànd ak waa glace gi am ñu ànd waaw dama ne am waaw ah, waaw dama ne ma sama waay egg autorité yooyu ñëpp koy kon li mu rafet ndax autorité yi ñu ngi toog di seetaan ndax ci làmb ji bu fekkee làmb ji dafa mel nii ñoom dañuy duñu ta duñu ci làmb ji bëgg nañ affaire ah, nañ képp ko ànd ak doog taxaw ci ginnaaw waaw mbir mi du fii du ñu sori la ku ñëw da nga indi yar ak dal waaw ñun waa Tonor yàlla yar la ñu xamee bëgg nañ lépp daal ñu def ko kaw tekk ak tey Sëriñ Tuubaa maa ko ëpp doole fuuf maa ko ëpp doole fuuf billahi walaay taala auzu billahi bisimilah yi nga wax ne laa bis ma sant yàlla julli si yonent bi di sant waa garage gi di sant waa kee bi yëpp maire yi yéen ñëpp bàyyiwuma leen yéen ñëpp maa leen sant di leen gërëm maa leen ndaw ah di leen bëggee suñu kee bi yàlla na ko yàlla yokk bu gën a awaale si bàq suñu bàmba ah. di gërëm ñi fi nekk ñëpp bàyyiwuma kenn di gërëm ñi fi nekk ñëpp bàyyiwuma kenn ah di gërëm waa garage gi nag di gërëm waa garage gi wax kii li nga wax ba mu nag kii moom dañ wax bëtul xamantaan bu baax moom mi xam na kuñ biraa bu baax bu ma ko jàppee ay ñun lay doon gars yi wax minute waaye seconde ay seconde la waa gars ay seconde laa dañu am place lu gaaw ay minute maa ko mën maa ko bu doole waaw dama ne monsieur waaw sama waaw bismillah bismillah inna wàllu yàlla ginnaaw buñ santee yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax maa ngi sant sama yaay boo yëpp ak sama xam nga yaa ma gën a xam sama gars yëpp maa ngi sant dama bëgg a xam ne billaahi wallaahi taalaahi man mosuma bëree fii ne xam ngeen mais kii maa du combat man dafa entraîné waaw ni ko ëpp ko yàlla doole yàlla ko yàlla may ndam billaahi wallaahi taalaahi maa ko daa doole ëpp doole fu barki Serigne Saliou Mbacké waaw eh ak barki Serigne Touba jaaxaanu ku daa doole yàlla ko yàlla may ndam ku ëpp doole yàlla ko yàlla may ndam moom ay million ay minute man ay seconde laa koy daal commencé a jóg. waaw jërëjëf. waaw Bira. waaw jërëjëf. leen loxo ndax mu nekk nii waaye loxo waay ok waaw. dama leen wax dana dugg ci deuxième combat bi ndax deuxième combat bi tamit mbir la ndax nee nañu Modou ana ñaar def Modou waaye Modou li ma la ñu xool waaye ana benn waaw waaw way way ah waaye loxo loxo loxo way di tàkk waa déet ana bi di tàkk rek walla comme ni jox kay nii moo koy wax ndax mu ñëwul tamit soo waxee dina ko gis ay mbokkam dañ ko dégg boo xam boo ko jàppee doo koy def waaw nan bi rek comme ça ñëwul dafa daw nan bàyyi ba bi rek mu jóg waxoon na ko moo bon dégg non nan bàyyi ba bi rek xam nga loolu dara daanoon. dañuy ñëw dama naan que. Ah, waaw kon incha allah ci kattanu borom nee naa comme mu jëm daanoon day ñëw daanaan ko. dama ko ko bu subaa. na gaa yëngal si kaw ma yëngal si suuf. d'accord waaw loolu rafet na jërëjëf Faye. Thank you. ne mbër la doon ndax magam ku magam ñu ne Georges Georges moom benn combat la am mu daan ko benn combat la am bati daan ko waaw kon nag kii moo koy taxawoo moom moo waaw dañ la ko loxo lay saaba yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci droit social kon ko ñëwul nag man am na lu may wax waaw wasalaam. waaw jërëjëf kontaan nañ ci yow kon moom ñëwoon amul wax bu suuf bi daal waaw dafa ne combat bi le huit la le huit Bayam Dieng le huit. combat bi ci des mooy ci ana càtt yoof waaw ragal dem guy way xew yéen ñaar seen diggante. non dara da ko moom mu man ma di xaar sama tur rek loolu kese la moom dara. yàgg yàgg da ngeen daje yàgg da ngeen kon nag fii ngeen ko war a mën a xam sa kon nag aywa. waaw asubila bisimilah indi wàllu yàlla jërëjëf borom Touba sama gaay yi maa leen di di ziar di sama di bëgg sama grand bu baax grand Baba ak Lébu Ndoy grand Mara maa ngi sama gaa yi ñoom Balla grand yi baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal gars bi tëgg làmb ji xam nga di ko wax lii nii yàlla na yàgg quoi dafa baax ndax ñun dañoo war a bëre fii nii xam nga rek dafa yàgg ñu bëgg a bëre sa mun ñoo bëre yoof tey bu ñu yàlla mayee combat fii nii xam nga dañ koy sant yàlla maa ngi koy nuyu nag moom xam nga di ko bëgg lu bëri bëri di ko ñaanal jàmm xam nga bu suuru combat yàlla may ma dem si kawam incha waaw jërëjëf sa wax rafet na waaw dama ne Thiatou Yoff loo paree ci si yonent bi di sant sumay ñaari waajur bu di gërëm ñi fi teew ñëpp waa dox jaama moom dama leen ñaanal barki Serigne Touba ndax awma seen fay moo tax duma leen wax dara dara waaw di gërëm Thiatou Yoff bu tey tey bu ma bëggee làmb yàlla ak waaw kii moom li may wax ak moom yàggu ndax dañuy saaga yàkkamtee xeex la te yàkkamte bu la taxee aw si toolu ngooñ di nga aw si yoonu xaaxaan kii làmb boole ma ak moom barki Serigne Touba Mbacke du man ak moom dama koy may sant rek mais xaaral naa yaakaar naa bu duggee si man non fa la jaara bàyyi làmb ndax moom du ma moom waaw comme li may wax rek moom nee na làmb boolewuñu yaa ngi dégg mbër da ngay takk njong du bëre man su ma dugg du bëre boo ko ñëwee da ngay seetaan barke Seydina Mouhamed maa la dàq bëre maa la ko doole barke Seydina Mouhamed man si ñaati bi ku mënoon wax dama bëggoon ñoo faire play nii rek après moo mais le suñu combat ba si la ñu xam man maay kan barke Seydina Mouhamed yow nag suñu combat ba di nga xam man maay kan yow ne man ak lamb moo ñu boole mais du ay nomba nag yow ay nit lañ waaw sama gaay nga mais le jour ba si ngay xam man maay kan si gàttalu yàlla dinaa la daan lamb boole ñu man ak yow incha allah bu abit si biir ni nga taxaw dëggal sa bopp barki alquraan karim ah ma wàcc la ma maa dàq bëre ngay jël ma toog gën a ñëw métti lu métti fuuf yow dayoo sa lamiñ du wax sama bopp moo ma gënal du bañ naa la barki Seydina Muhammad bi ma yaakaar tey ak ëllëg bu combat bi amee minute ba ma dul tekki sama ngem jox ko bituwaar yàlla bu ma jëriñ si àddina ak àllaaxira billaahi wallaahi ta maa la mën maa la ko doole sew naa trop mais dañuy jàll dëngoo doxe na ma dëng déggoo wax ji de mais loolu yaa si yegg man ba léegi xaw ma yow lan moo ne si biir soxla maa kaa xam sax xam nga laa soxla si yow. gaynde gu mat daagu jëm ci géej. ba tamit ngox teew ko naan. ba dama teel naan ko ma jëm. waaw ma soxla si yow ak discipline ni yaa ma bu doole foofu war na yàlla. gëmal sa bopp da ngay liggéey may liggéey. kon nga war kon nga war a seere sa bopp nga noppi. loolu mooy wax ji. ba ba suuru combat bi. maa la mën ma la podoo maa la ñu taxaw. waa si kàttanu yàlla yàlla yàlla may suur ak jàmm incha allah. waaw jërëjëf waaw kooku moom Thank you. ¡Gracias! aywa taxawal gaaw te suuf pare boo kaam kaay na gaaw na dañu xaw a léegi sant saw ci doon bëri la te egg seegu woon ñu boobu egg si léegi yow noo koy nu ngeen di paree bis bi. waaw ah, bis bi de dañ koy pare ni ñu ko war a paree rek waaw ñëw yàlla may ñu ndam ndamu sedd bi macha allah. ak waa loolu wax sa waay. waaw ginnaaw bi sante yàlla julli si yonante bi ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ñëpp bu bàyyi seen yite ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu champion yi fi teew ñu ngi leen di siyaare bu baax saa aw lu moom di xaar bu rek parce que yàggatul mooy yow am nga bis bi kon da nga wax ci moom noo koy def bis ba waaw comme ni ma doon def yeneen nga la lay def hmm. na contact lu mu mën a contact rek waaw asalaam déedéet ñëwuñu fii pour ngeen di laami soo dafa war a metti signature contrat lañu wax dafa war a neex ndax askan wi mën a teew waaw comme de nee na ma kontaan lu ma mën a yaakaar naa ne moom boppam lay waxal ndax ki boo dinga cangaay day fekk nga seet ba pare te amaana moom seetul am na lu koy xaar bu baax a baax incha allah bu ci eggee dina xam ah mbër dégg sa wax wax dégg naa ko bu baax mais na pare rek wax ñu wàcc na pare na pare bay Serigne Touba na bu dëggalee boppam ma daal waaw jërëjëf nee naa wax ci wax ci pare boo dëggalee sa bopp mu daan la nee na dalay daan yow ba toog sa kaw. ku pare jarul nga daan na pare koo xamante ne nii pare nga ba pare. Hmm. jaratul ñu naan laan ba pare. te incha allahu rabi moom bu dëggalee boppam mu daan. waaw jërëjëf joxante naa la xool xool jox ko la ko tampon ndaw tampon ci ko commune bi ñëwagul il faut ne ki ya bang, bang man soxla ma Issa man soxla ma Issa bang man mbër mbër laa soxla kaay bi man waxuma Issa Bakar mbër la ñuy soxla mbër kon kaay teewal ko waaw sa waay loo sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp sa tur sa maa waaw moom comme ñëwul moom amul lu ma koy wax quoi mais comme ñëwul maa ngi moom xam nga yàlla ko yàlla may jàmm daal ba jour mu ñëw si jàmm quoi. dama ne am ga problème ndax moom gaynde la yebal gaynde te gaynde moom àll bi yow am nga problème de seen bi. non man lii mënu maa def problème ku bëri six combat arène lii mënu ko def man damay bañ rek ñëw di compétir moo tax ma ñëw jël combat bi damay bañ a toog barki alxuraan six combat laa bëri bi kii du ma dama xool damay tëdd nelaw ba jour ma ñëw jàpp ko daan billaahi. est-ce xam nga ki ñuy bëreel am na douze combats dix victoires xam nga ko bu baax. waroon naa ñëw moom waroon naa ñëw. daa waroon na ñëw bu ñëwoon laay xam. kon mu bàyyi laajte mu yëbal nga xool. waaw. waaw salaamaaleykum suma gaay Ah, beneen tur waa dégg mu ngi nii tiin na mu ngay lijjanti gi mu war a yow kooku xajul si kaw man rek maa la man yow sax tuma la ilam yoof waaw waaw si waaw waaw suma gaay ginnaaw ma sant yàlla julli sumay ñaari waajur waaw di wax li ma fi indi bi ilam yoof li ma yóbbante rek la ma wax kii ilam yoof xajul si kawam bañ ma boole woon man mi bañ ma boole woon moom ni la waxaatu mu daan sahamtumalaa ilam yow yow xam nga kii nga dajeel yow ndax xam nga kii nga dajeel ak laa bëgg nga xam ko soxlawu ma koo xam moo tax nga dof yow yow nga dañ laa yónni rek am suqu nga sama rax bee taaw laa lay boole kële sañu sa kaw da lay dambate yow man waxuma la sarakare yow su ma dëree di nelaw sax mënuma yee yow yow su ma dëree di nelaw doo yee waaw. yow dañ ne saraka man waxuma saraka yow la maa waxal dama ne la borom daaru dafa di si yow. Ileb Yoff nga gën kaa xam ndigim départ bi rek yow tinnal naan borom daaru lañ ma wax Ileb Yoff mooy borom daaru c'est borom daaru dafa doon loo xamante ne cër bu rafet la moo tax mu dëppal loolu tudda Ileb Yoff mais ka mooy bëri si laama la tudda borom daaru loolu fa la mais dañ koy rafetal def ko Ileb Yoff ndigim nag ba da nga tiit yow man rek kaa ñëw nga tiit yow. kon dama lay bàyyi ba bés ba boo jàkkaarloo Ilem Yoff nag di nga xam ka moo ne Ilem waaw mu ngi sant waa Yoff yëpp li ma yóbbante nee na bàyyiwul kenn mu ngi leen di bëggee bu wér di leen siyaare pour ngeen jàpp si combat bi waaw. waaw jërëjëf. ngay sant ci loolu. waaw ok amul ma ci wax moom garaawul quoi moom li mu wax dëgg naa ko mais bu demee daal na xam daw na signature bi mais làmb ji moom amul daw day ñëw par force. waaw nee na daw ba signature bi waaye lamb ji mënu ko daw seytaani rajim awdu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim maa ngi sant ñi fi teew ñëpp i yitte di ñu seetaan di suma mag ma àndal tamit yaawa day day jàpp si sumay combat bu baax a baax waaw di di wax nag waaw Yoff di wax nag tamit làmb gëjoon na Yoff quoi nañ ñaan yàlla ñun mbëri quoi ñu def loo xamante ne làmb ji du

làmb ji bëgg nañ képp ko ñëw ko indi yar ak dal waaw sabay moo koy woy waaw dama ci yàgg maa woy làmb waaw ku tëdd gi waaw dama ne booba yaakaar te dina ñëw Dakar ñëw te billet yi yombal nañ ko billet yi moom seerul waaw ak tay si ba a dañuy am seen kon nag mbir mi moom ku ñëw rek nga dem parce que waaye yow sëñ bi. salaamaaleykum. waaw di nuyu waa yëpp rek. waaw ah, di leen di leen ziar tamit waaw di sant tamit sama gars yi ma nale. na le waaw parce que yombul quoi nga xewle ñu pikin Pikine ba yombul waaw adversaire mom dama koy nuyu awma lu ma koy wax di ko ñaanal jàmm tamit parce que mooy loolu quoi daf maa teel sama laf parce que dama ñëw mu dalal ma dama jóge Pikine ñëw ba Yoff mu dalal ma jàmm kon awma lu may wax si moom lu bëri dul jour ba di jox rendez-vous ngeen ñëw ñu indi Pikine Pikine la ñuy indi Yoff le huit incha allah taay si nga la ñuy indi Yoff waaw bu soobaa di gis di ngeen di ngeen kontaan daal dañ leen bëral rëy waaw yow nag di la ne waaw dalal nga ma jàmm tamit mais teewul bis ba tamit ah mooy loolu de <laughs> yàlla yéen lu di sax loo loo xam ne attanoo ko incha allah. bismillah ci la ñu doon lu waaw man moom ku ma xamul jàpp naa ne dégg nga ma tamit. kaa làmb ju ne bëri naa ko si dëkk bi trophée wu ne tamit indi naa ko fi kon làmb mënatuma jaaxal ak làmb ju mu mën a doon rek mënuma jaaxal dinaa ko gérer ba mu xam ne gérer naa ko bu ñibbi ma jox ko paas mu yóbbaale. wax dëgg lu wax. waaw kon baax na ba tey kon rendez-vous bi rek sama gars yi le le huit incha dina dina ma jox paas su ma ñibbi amul problème man de fii lay bàyyil drapeau bi la ma lay daan mayaat la drapeau bi amul problème. loolu si xamul Pikine daa amel bor yoof te maa ngay fayu yoof bi Pikine daa amel bor yoof te bor bi duñ ko mës a jël duñ leen ko mës fay waaw ah, loolu bor bi bor bi si man mii lay jéene laa la wax du mës a ñëw laa koy wax loolu bu lee nga xam ko tey lamb ji Pikine dañ ko téye suñ loxo ñoo ko moom te duñ ko bokk ak kenn waaw nee ji Pikine lamb bor bi dinaa ko jël ba mu ëpp sax te benn affaire dafa am yoof bii nii ëppale wu ma fi moom lébu pire laa si nday si baay yaa may dégg ndayaan laa dëkk rakku Tyson 2 laa yaakaar naa loolu moom fii ku dégg loolu li ma wax nii dina am ne ëppale wu ma biir yoof Tyson 2 moo fi yam rek man fi laa juddoo fi laa yaroo lébu si nday lébu si maam lébu si tànta lébu si bàjjen lépp kon yoof bi maak moom ñoo ko bokk ba pare damay indi Pikine doolil ko si nag si kaw waaw kon loolu dina ñëw de ah

doomu ndey bu ma gis fii sama doomu doomu ndey eh gars yi toog leen dama jeex waaw gannaaw ménagère dafa nekk fii ménagère gaynde yi dafa nekk fii te yor na xaalis bu bari te moom ci ñu tuddee combat yi ci la bokk ana moom dañuy woy ki organiser làmb ji seex muy suñu mag di suñu xarit ah làmb ji biñ ko jàppee ba léegi mu ñuy soññi ma way man ci ndey wayuma la ci baay ah li ma lay way réew mi ko wax man waxuma ah, li ma lay way la ci nday caatu yoof kaay fii si biir mën nañoo ñëw fi def signature bu toll nii te doo dugg si am tëggal leen caatu yoof mu ñëw waay waaw waaw waay loxo waay ah. eh. Jambalay Jambalay bay loxo may la di jàmbalay bu ñëw waaw waaw ana Zoss ana Zoss naa ne loolu foor bu ñu sant yàlla julli seen tub sallallahu alayhi wa sallam gërëm sama ñaari waajur di gërëm sama sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di gërëm waa Yoff yëpp nag ama seen fay góor ak jigéen mag ak ndaw di gërëm sama mbokk mariyeer góor ak jigéen mag ak ndaw ak jigéen ñëpp ma kenn di gërëm bëri nga xam tamit ñoom tamit ñoom ñoo fi ñoo fekk ñu si bés bii nii mbër sama xol seet na si yoon trop di gërëm laay bëri si lu nga xam ne mooy suñu président marieur ak Guébel ñoom ñëpp ak jigéen ñi bàyyi ma ñëpp waaw maa ngi gërëm ñëpp ñëpp si jàpp as mi tamit wax dëggal di buñ commencé ba léegi mu ngi sonn ak sama gars yi ñëpp ngi si jàpp ak ñi xam allah nga xam ne mooy Birame Ndingo mu ngi ci laay Diouf saar laay bëri sil Amadou Sarr ak suñu patron bi nga xam ne moom lay liggéey muy Babacar Gueye waaw maa ngi sant ñoo xam ne ñoom ñoo si jàpp ñëpp waaw maa ngi sant gërëm góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyi kenn di gërëm mbëri dina jox rendez-vous incha allah le 8 juillet incha allah ñu ngi koy def fii si stade bi fii nii terrain Ndiow ñu ngi yëgal nag bépp supporter bu ñëw da nga ànd ak discipline yar ak teggin incha allah sécurité bu mat dina fi ñëw gendarmerie dina fi ñëw police dina fi ñëw nag ku ne ànd ak yar ak teggin ku ñu daan sa mbër nga xam ne daan nañ ko ku yàlla may ndam nga xam ne lañ may ndam waaw di jox ñëpp rendez-vous di gërëm ñëpp di jégalu si kàddu sama gars yi gërëm naa leen leneen tey seen deux kontaan naa si moom baax maa ngi koy sant di gërëm gis naa di nuyu ëmma seen baax gis naa seen taxawaay jërëjëf maa ngi gërëm tamit jàmmalaay moo xam ne moom ma jàppale si affaire yi tamit xel day fatt maa ngi jégalu di moom commencé ba léegi maamam ñoo si nekk suba ak ngoon ñu ngi nekk ak caatu yoof maa ngi koy gërëm capitaine dina ak maa ngi gërëm mbëri yoof yëpp bi ne maa leen gërëm di leen sant waaw grand bi Papa combat bi Papa Sow ak Aldo mooy nekk grand combat bi Papa Sow ak Aldo mooy nekk grand combat bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous. Eh, eh, déedéet jeexagul Papa Sow mi ngi nii. eh gars yi maa ngi jégalu lépp waaw mais ku doon pare na sax. waaw. ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi encore une fois. parce que sank ci signature bi si ngoon noonu dañ war non grand combat bi ko war non signé nga xamné mo ci war non wax loolu Papa saw numéro 2 mom mom lañ mom lañ faté won ci cadre dal parce que bo mo amoon wa Pikine ñom dañ yakantu ben instant lool mo taxone léegi ñu jéggul nak ci ñak wax nga xamné ne moom la sànni kàddoom ñu ci jéggul bu baax baax adversaire dafa ñëw toon na xam peut-être ak prévision yi gaay yi mo rañu faté mais mo ñu jéggul bu baax baax na ci cadre yi wa du gaay di gëreum gaay yépp wa fekk ci ko fi ne bu nga xamné mom moom muy ñu jox ko kàddu moom tamit ñu sànni ci kàddu du dara na mais dañu fàtte woon na moom war na wax ak adversaire am ñu fàtte ba yàkkamti ñu waroon ko jox kàddu joxuñu kàddu moom tey moo wax li nga xam ne moom lay préparé bés bi ak lan la am lu muy wax adversaire am ci bés boobu incha allah Pape bisimilah. bisimilah. maa ngi sant yàlla di si Seydina Muhammad sang-sang yi waa di waa yoof yëpp nag di nuyu waa yoof surtout sama koñ. xur wi maa ngi leen di ziara di leen nuyu di leen wax waaw nañ ko daan jàppee rek may am ndam di waaj sama combat daan ci jëlee ay ndam yu neex di leen ñëw ñu may teeru si teeru bu neex aussi tamit mooy ñëwanteeg si ñoom si ñëw boo xamante ne ni ñëw bu neex lay doon waaw di wax la woon foofu rek euh, di euh, woon rek euh, sama adversaire moom li ma koy wax bëriwul waaw parce que man moom dama respecté contrat bu ma jëlee contrat jaamur non dama kay respecté lim li ci war yëpp dama kay def euh, bon kon yenen combat yi et puis tamit euh, combat bi du combat bu danger combat la rek comme yenen combat yi ni ñu ko daan waajalee lañ kay wa parce que ñun toujours ñong suñu yoon gis nga fi nga ñi fekk ni da ngeen ñi fekk ñi entraînement ci entraîneur lañ jógee ni ñëwaat di entraîner kon ñun entraînement dafa nek lo xamné ne suñu métier la aussi lamb tamit suñu métier la comprendre nga ñu ne xam xaaj bi ñëpp si làmb la ñuy xamee benn instant mais rafet na nga jox nga jël contrat ñëw respecté contrat bi ñëw signé ñëpp xam ne yow mii carrément jël nga combat waaw et puis tamit du ma ko du mi ko balaame si côté boobu mooy que ne Papa Sow moom kuy bëre ak moom rek yow mooy mooy loolu say mbokk ñooy tranquille mais yow moom doo tranquille te la jour lay xam ni lay xam ni lépp dëgg la le jour dinaa ko ku xef doo ma gis bu may dugg si stade bi te ku xef tamit doo gis jël bi waaw di waxaat barke Baye Laye ak Seydi barke Baye Laye ak Seydi barke waaw loolu la ñuy tujjee loolu la tëjee saa su ne waaw loolu la amoon ci lu may si kàddu yu may sànni mhm. waaw rendez-vous moom di wax non violence man moom ku ma xam ci làmb grand as mi yaakaar naa ni bi may début bëre ba léegi booy laa si kanamam champion yu bëri fii nii di wax fii yoof ku leen ku tudd yoof mbër tudd leen laale nañ xamante nañ bu baax a baax xale laa fi yalla natoma ma ku melni Agawa ku melni soge, ku melni Papa Yoro ku melni Amet Coy xam nga ku melni sama gaay ño salma xam nga ñu ondo ci beure kenn jangaluñ ko nak aussi kenn jangaluñ ko ñu ondo ci beure bon magge ci beure wa ku melni suñu grand mu jë ka ñaanal mo saison bi nga xamanteni ñu mom lañ duggu di ka ci ñaanal mo am ci combat ak yeneen beur yof yep wa mais sama adversaire mo li ma koy gën confirmer moy que lamb ji man ak mom la ci bir géew bi man ak moom ñooy bëri waaw làmb moom bon dafa dee si suñu yaram ñun ñun moom amuñu problème boobu di gërëm tamit sama grand Sidiya moom yi nga xamante ni moom aar bi lu bëri la ma ci mën gannaaw yàlla moom la moom ma jàngal aar moom ma jàngal yu bëree bëri ñu bëri sax dañ naa Papa Sow du mbër Papa Sow day judo